Diaz dal di dinay visiter yoon yi nga xam ne ñu ngi koy defaraat ci Grand Yoff ci teewaayu équipe ak équipe bu maire bu commune bi di ma Madiop Diop. mu dal di xamle ne bile projet jëm ci jekkalaat réseau routier bi marché bu toll ci fukki milliards ak juróom la ci suñuy koppar nga xam ne ville de moo ko lancé ci diirum ñetti at. lu ñuy liggéey mooy ay tali yeneen tali dañ koy liggéey ci euh, daanaka utiliser goudron mooy fépp fu am. fu assainissement amut mooy lu ngeen di gis nii mooy pavage dañuy teg pour ndox bi mën a infiltrer wu. donc euh, ci ñetti at yi incha allah dinañ euh, couvrir dix huit communes yu nekk biir Dakar parce que dix neuvième commune bi euh, mooy Île de Gorée. ci bile commune liggéey yi tàmbali na ci deux voies Liberté 6 yi CMS 4 Urbam wala sax ci HLM Grand Yoff yooyu yoon nga xam ne dafa yàq woon bu baax a baax. sant d'abord maire Dakar parce que bu doon maire Dakar ñun mënuñu def lii on n'a pas les amuñu moyen def ko. mais maire Dakar moo dellu si gafaam pour dimbale commune Grand Yoff deux deux kilomètres la ñu commencé mu des quinze kilomètres. jub commune Grand Yoff moom itam dal dinay sàkku ci askan wi ñu dal di am civisme ak responsabilité. xam ne li ñuy defar du pour ñun pour ñoom la ñu mun ko sauvegarder defar ko ba nga xam ne bu ëllëgee ku fi jaar doo wax waa Grand Yoff ñu defal dara. Barthélemy Dias dal di prox ndoll ci lu ni mel ngir dal di o waa Ageroute ñi nga xam ne ñoo yor lépp lu jëm ci yorange tali yi ak voirie yi njiitub vilu Ndakaaru bi tam dal di nay artu askan wi ci kaw bu ñu yàqee yile liggéey ndax nag dinañ leen teg ay daan